bëy Bawol yëpp sumay frère lañ xam nga ku ci xewle it nii laay défend damay jàpp lu ma bàyyoon ñëw teew quoi wax dëgg yàlla ah, tey tey muy dajeeg ndaanaan di bambala lan la ak lan koy doon macha allah di ko ñaanal ndam rek mbay moom gëree la min na bés di ko ñaanal yàlla may ndam rek xam nga ñu ngi liggéey long time xam nga li des nag loxo suñu borom lañ koy bàyyi daal moom mooy mot li ñu koy ñaanal ndam bu baax incha allah boo ko doon conseillé tey la mbay moom xam nga min na bés comme niñ koy waxee li des moom ñaan la quoi liggéey na ñun ñëpp gisandoo nañ ko liggéey na li mu war a liggéey nañ ne loolu suñu borom la quoi nañ ko bàyyi ak moom waaw. bi ñu jógee ci sa sa bos yow nga dajag booy ñaata préparation yi gis nañ dem ngeen def face ci wàccaay. waaw suuf si loolu ñëwoon pour remplir suñu contrat rek xam nga contrat moom dañ koy respecté ñëw nañu remplir nañ suñu contrat bien vrai que suñu adversaire teewul mais c'est comme sa noonu la xëy na dafa nekk ci yeneen amul temps dañ koy comprendre quoi yeah. Euh, man ci présence bi laa doon wax ah, parce que lii dafay gën a firndeel ne euh, yaa ngi gindi xale yi di leen gën a jàppale mënoon na ci mënoon na la ci bañ a fekk mais toujours rek dafay wane ne Bawol bi yéen ñëpp benn ngeen te loolu ngeen di benn lañ ñoom ñëpp su may rak lañ ñoom Zallo ñoom Mbaye Diouf ñoo ñu tete xam nga bu ñu yegg si fi bu ñu nee nekk lutteur en activité dëkk digg Bawol c'est normal ñu teew quoi. gis nga Moussa Dioum à côté kon on ensemble dama ñëw gën a kontaan quoi ma xam ne may booy nitu nit ñi la quoi franchement te noonu lay doxale man suma booy la moo tax namatuma États-Unis day yéegi indi ma valise su yére xam nga moom business su yére lay def yaa ma gën a xam. waaw mais Tapha léegi lan ban dernière euh, ne mënul. nekk combat boo xam ne un mois moo ci des moom xam la reste yëpp xam nga comme liggéey nañu ba yàlla may ñu ñu egg si fi xam nga voyagé wu ñu bien vrai que doon nañu voyagé pour ay combat mais comme combat bi lii la yàlla dogal ñu ngi koy pare fii te yaakaar naa am nañ ci satisfaction totale ko non loolu moom loolu moom euh, choix am la quoi xam nga mm, mbër da ngay am sa choix nii laa bëgg a pare sama combat dañ ko koy nangul ñun tam ni ñu pare suñu combat nañ ñu ko nangul. bu ñu ñëwee ci bëre bi tey ndax daw jàppante ak na loolu. ku mën a bëre laa nag. ci dara waaw loolu moom c'est clair quoi. mais ndax daw jàppante ak booy ñaar Tapha bëgg na loolu. naa ko trop. parce bari dañoo gis Tapha xeex bi la gën a privilégié. non non non kon dañu xamul Tapha am na champion bu mag def na roi des arènes xam na kan mooy Tapha Tine ci lu bëre parce que mbapat nañu maag moom lu bëri kooku moom xam sama mën a bëre ndax combat bi mën mhm. nañ xaar Tapha nëbb xeex bi indi bëre bi. lépp mën a nekk. li may wax booy ñaar mi ngi lay seetaan. non it's benn laaj rek pour ma jeexal dafa mel ni combat bi dafa am benn règlement de compte bu ci nekk. non amul règlement de compte yàlla xam na ne xëy na bu dee joxante loxo maak moom nii noyowante musul am kon amul règlement de compte quoi. la frère la xam nga. non I don't know. nga indi lépp ay sakande nappaaje. xam nga yooyu yëpp loolu anytime after la. Ah. boobu damay ci def court incha allah. am na loo nga ni never non kooku <laughs>